Hmm. seetaan nga combat Bombardier. waaw seetaan naa ko. naka nga ko gisee MMA bi. non man MMA bi nu ma ko gisee man mbëru mbër yi man MMA daal nu ma ko gisee nekkul di da ngay mën bëre rek. mën dóor rek. comprendre fu ma ak yow. jug dem fa ne da ngay da ngay def MMA. man pour man pour man am na leneen loo war a jàng leneen ak leneen. lan nga ci jàngee parce que ñu ngi bi Bombardier di dem ñaanaloon nañ ko et puis yaboon nañ ko yéene nañ ko mu am ndam ndax drapeau Sénégal la doon xeexal keroog. mais ñu ci bëri dañoo gis ne combat bi dafa yomb combat bi dafa gaaw kaaw bi naka nga ko jàngatee. naka laa ko jàngatee ndax parce que Bombardier moom ku ko xam-xam ne day ñëw man nu ma jàngatee combat bi damaa liir ne kon waa ji moom dafa jàng jee da ko liir da ko toog di ko seetaan di ko togg di ko togg di ko seetaan jàng daf koo jàng ndax parce que nu ma gis nu ma xeexee ak moom comme ak yow gisoo waa ji arrière la xeex ak moom. kon kon jàng na Bombardier man pour man. suivre na ko xam ne. Bombardier mi day ñëw. li Bombardier di ñëw yëpp dugal na trois trois coups. Mhm. direct. Mhm. ba bi bi Bombardier di kaaw. dafa def mhm. rotation. Bombardier ñëw daanu. dëgg la fi mu taxawoon fa la Bombardier daanu. mu bëgg ko dolli fa sa yegg suuf. dëgg la ndax parce que Bombardier moom tànkam du jug. te gis nga waa ji day am atu du dóor si tànk bi comprendre nga yow du dóor. du dóor pour mu perdre équilibre dóor si biir. comme nga ya te jee tànkam daal diis te moom mu mënul wékk moom moom dóor rek la mën ak jàpp ak ak la daan la. ñu ci bàyyi nee nañ euh, ñaanu ma yàlla nit ñee ko wax. Mhm. nee nañ di nga ci gis mbër mu dem mais buy ñëw ci kaw bi yàlla ñu koy dugal ndax mbër yi mënuñu dóor tànk. Mhm. te jàpp rek la ñu mën xeex bi sax demeewul noonu. Mhm. est-ce que loolu mbër mbër mbëru làmb yi est-ce que mën nañoo defi MMA. mais tamit événement bii ma gis kat wax dëgg yàlla moom dafa am lu mu jàng nekkul da ngay loo xarañ ci bëre bëre bëre bëre war nga war nga ut ay ay ay taay ay dégg naa ay taay kondo dañ koy jàng ay karaté dañ koy jàng ay kung dañ koy jàng lig goromet dañ koy jàng bëre dañ koy jàng ndax parce que sénégalais dugg na si. mais yow ku la yaboon yóbbu la di nga ko def. no du ma ko def te jàng ma ko lu ma jàngut du ma ko def xaalis jarul ma ko sama bakkan bi moo ma ko gënal fukki yoon ak juróom. xalaat nga ne bakkan da ciy def. Ah, lu luy ku ko gis xam nañ ne du làmb ji événement du làmb de. non non. maa yaa daa mel ni day delloo avance bi. non man delloo tëj bi. non non sans tëj bi sax. dóor lan lay dóor. nga kaaw wala ñu dóor la ñaari dóor nga nga kaaw ñun bëri fii ñaata. daa am ñun bëri ñaata dóor la ñuy dóorante. wax nga dëgg <laughs> ah man ndeke dof bi wax na waxi nit de. <laughs> ah ah mais dof bi ku ko jàppee dof yaay dof de. si làmb ji moom da ngay gis mbër yoo xam dañuy dóorante cinquante coups kenn benn coup la lay dóor fekk kon nga loolu li ma la wax bu baax a baax. te noonu la demee nag. te si ay plan lañ koy teg. kon nag mbër yi dama leen di conseiller képp ku képp kuy dugg si lii. dem nag internet affaire bi. jàng comme ñoom li ñuy def nga koy def. li gërëmet dafal. karaté dafal. judo dafal. lépp nga def ah man loolu laay conseil sa mbok mbari yi. tàggatoo ñu tëj ñoo ngi may signaler temps bi. mais làmb nag moo ngi dee nag. Hmm. waaw. du tax nga ndax parce que man ministre ministre bi moo ñu ko teg. tey ñaata mbër nga dégg ne man la samaay ñoo ngi dem ci événement bi bàyyi làmb Sénégal kon làmb ngi dee. lan nga gis ne ministre moom la woon def loo xam te ne day suqali làmb. non parce que dama gis ne man la samaay football yi ñoo ngi am. tennis yi ñoo ngi am comprends pas yow moom lan moo rey làmb ji trois ans yu mu téye làmb ji làmb amul te football moo ngi am ah boxe moo ngi am gis nga kin boxe moo ngi am événement bi moo ngi am. bois di sax a ngi tëgg. te bois di ñu ngi tëgg mais man mais kon moom bu téye lamb trois ans làmb euh, te bois di tëgg football yi di daw comprends pas yow kon man dama gis ne moom dafa bëgg rey lamb na ñu jàppale dimbali ñu ndax parce que suñu mbër yëpp ngi daw. ñun làmb mooy suñu cosaan ñun làmb lañ xam mais dem nañ ba ba ba ba événement bëgg a doon suñu cosaan mbër boo wax mu ne événement. événement ah, ah waaw waaw événement boog ah. Ama Baldé dégg naa. moo ngi ca yoon ba moo ngi ca yoon ba Boy Niang dégg naa. moo nga ca yoon ba eh, dégg naa. si tàng sa yoon ba dégg naa rek rek. moo nga ca yoon dégg naa kii waay nu mu tuddati waay. 2 Ziga 2 Ziga 2 Ziga moo ngi sa yoon ba. waaw mais non man damay dem sax waaw loolu man moo gën moom mooy yóbbu déggoo la ma laax moo gën déggoo la ma maa ngi sa ginnaaw doomu nday si boo